mu ne fa xaalati nisaa u jigéen ña daal di wax yaa rabbana yow sunu boroom inna haza niki kii zawjuna moo nekkoon sunu jëkkër fi dunia ci àdduna wa kaana yadribuna daan nañu dóor li adami tabxi ngir ñàkk togg wa sax yi ak root wa kaana nekkoon ne yadribuna di ñu dóor li firaashi ngir lalam walam yadribuna daawuñu dóor li adami taatillahi ci ñàkk topp yàlla wa rasuli ak yonentaam wa salaati ak julli wal usli ak sangu wal wudoy ak njàpp wa adami islaaxi sawmi ak ñàkk sellal koor ولم ينهنا داو نتر أم الله يتفو ورقص أك فج والعناي أك وي والفضول أك وحنين والكلام الخبيه أك وحي نياو يا ربنا يسنو بروم خذنا نجل لنا دي نيال منه تيموم أقنا سنو أق ثم قال الأولاد تقو دوم يدال دي وخ يا ربنا يا يسنو بروم خذنا نجل لنا دي نيال أقنا سنو أق من والدنا هذا تسنو ويجروي لم يسمينا تدوني اسما تور من أسماء الصالحين تتور يباخي ولم يؤدبنا يرنيون walam yuallim naa jàngalu ñu woon chey an dara min kitaabillahi ci téere yàlla bi walam yanhanaa te daawuñu tere ama naha allaahu anhu la nga xamante ni yàlla tere naka ca boppam walam yaamru naa daawuñu digal bi ma amara allaahu bi ca la yàlla digle ca boppam tarak naa daf ñu bàyyi woon wa atlax naa mu bayal ñu nafalu ñuy jëf ma nachau lu ñu soof min alxabih ci lu ñaaw yaa rabbanaa suñu boroom xus na nga jël danaa di ñu ñeel ak xanaa suñu àq minhu ci moom